bisimila mbokk yi nga xam ne nooy suivre Leewtoo TV nu ñëw ak yéen nag si jàngatu arène bi euh, journaux yi nga xam ne ñoom nooy def euh, lamb record sunu làmb ak euh, Leewtoo point net record moom tey dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Modou Lo si micro wu Abou Nour daal moom en exclusivité la teel a wax si record nee na Balla moom nekkul bête na moom d'accordul si ñi nga xam nañuy wax naan Balla Gaye su bëreeg moom fukki yoon dina ko daan fukki yoon nee na nag mun na am bés mu ñëw mu bëreeg moom mais waxtu bi jotagul loolu la dénk tey euh, record bi nga xam ni moom la sekk ak ki nga xam ne mooy abonour sunu lam moom dafa xëy dal ki nga xam ne mooy may dewaan may dewaan nag soo leen ko moo nekk si staff ki nga xam ne mooy tafatine mooy la géant du Bawol nee na daal lu tax combat ba léegi mooy ki nga xam mooy Ama Baldé te Pa Abdou dox combat ak tafatine dafa daw nee daal dafa ragal parce que ki nga xam ne mooy amaa balde am na siw siw na Euh, bëri na bëri na fugu mais daal dafa ragal ki nga xam ne moom mooy euh, tafaatin te nee na combat bi desul lu dul si si si Ama Baldé na nag instant bi nii Pa Abdou Fall dafa war a euh, xool lu muy def ak tafaatin mu léttu ko baa mu firi ko pour mun mun a jàll si leneen su fekkee tamit Ama Baldé bëggul combat bi na ko wax Sénégal ñëpp xam ko journal bi aussi mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Bombardier te mu nekkoon roi des arènes Bombardier nee na daal si carrière am benn at moo ko dese nee na balaa balaa muy takk ngeen ñeemam bëgg na bëre ki nga xam ne mooy Modou ki nga xam ni mooy Balla Gaye mais nag combat ba ko gën a yitteel mooy combat Gris Bordeaux nee na moom su tëddee du nelaw ndax Gris Bordeaux ko daanoon lu mu bëgg daal mooy jël revanche ki nga xam ni si kaw Gris Bordeaux aussi mi ngi dalal ki nga xam ni mooy Garga depuis États-Unis Garga daal neen daal àddunaam lépp ren lu mu bëgg daal mooy écraser ki nga xam ni mooy Sa Thiès wala ki nga xam ni moom mooy Siteu journal bi ñoo nag si bilan bi nga xam ne écurie Songane Gueye moom moom la def tey nee nañ daal euh, saison bi nu génn écurie bi def na 17 combats 9 victoires ak 8 défaites nee daal doomu dangu daal ki nga nur bi nga xam ne mooy doomu dangu nee daal wane na boppam bu baax a baax si si saison bi nu génn ndax daan na le 27 juillet 2019 ki nga xam ne mooy feu rouge nee na Mamaya moom dara doxul ndax nee na gisul dara. ak si Leewtoo point net euh, jéem nañu woo ki nga xam ne mooy Jules Balde pour mu mun a àddu si li nga xam ni Ama Balde bañ na signé contrat bi nga xam ni Pa Abdou Fall bañ na ko jox Jules Balde nag moom nee du si àddu képp koo xam ne bu nga xam ne mooy Pa Abdou Fall mi nga xam ni journaux yëpp ni ko doon laajte naan fan la nekk est dina tëgg ren moom nag dafa mel ne tontu na leen ndax mi ngi noonu dem CNG pour euh, renouveler li nga xam ni licence am nu jeexale nag ak benn nouvelle boo xam ne bu tiis la ki nga xam ne mooy super jamono 2 nga xam ne fan yëpp ni ko doon defar ket pour mu mun a jóg si feebar bi nga xam ne ko tëral ay ati ati ngi nii moom nag nee ñu nag mujj na génn àdduna leen indi loon si revue de l'arène bi nag si journaux yi nga xam ne mooy sunu lamb record leewtoo point net leen jox dig daje lundi incha allah